see. It's going to be amazing, and we can't wait to see you there. Medina Medina rasulullah jol màkk doon seen nag dañ fas yéene ñibbi waaye ba ñu pare nag dem nañu nag tàggu ji kaaba wër ko juróom-ñaar daw sa faak maro juróom-ñaar dem ci dal yi jol màkk yaa leen gën maa sarañu acte yàlla sa bakkaar yu njëkk yu mujj yoo am yoo xamul te boo ci dee dem àjjana xéewal gi kuñ su mën a boole min tottirat maaro kala mo ngannduɗaa a yettiima ɗo janngo a heɓat maaro kilooji nayi ɗum woni ruloru tubaako ndu wonɗen balɗe sappo e jeenayi ndu rewndu julaayi ndu ngonɗen min tottirat maaro kala ngarɗo ɗo rek a heɓat kilooji nayi maaro nde noon kala ndaarat ɗumen yetto bimbi officiel ɗo kilooji nayi maaro a hoddat ɗin e galle si on kuuɓaani min tottirat maaro haa fof dañamo kala ngarɗo ɗo heɓat kilooji nayi maaro sto amino mo heewi top maaro kala gettiɗo ɗo bimbi a hoddata kiloji nayyi maaro ko afisal waɗani on ɗum nden gaare bimbi keɓon maaro nafton galle on jarama eh, eh, eh, tay kay ma ɓisima mbi mbi kay suma bosla Eh, kurang nga naan casse power. bi nga xamee ne amuloo casse power bu tey lu tax nga naan ma yow seetaan see ko sa kër. ma ne defuma dàkk maa bi dafa important trop ci man te dama koy seetaani de. man mii sax suma kër laa dem seetaani ko. waaw waaw benn injakaay dugalal ma suma casse power bi yow. yow nii lan la nii. Qcell dafa indi lu air. lu ñoo wax Q power. ak Q power mun ngaa recharge sa casse power through SMS. ah waa léegi su ma ko bëggee am suma kër nu may def. loo soxla rek mooy. amal sa Qcell line. soo ko amee ba pare. waaw nga registré si sa mita bi. waaw mun nga see registré bi ñaari mita. soo soo registré sa mita bi ba pare. Mm-hmm. da xayma ñaata nga bugg a jënda nga yónnee ko si tri tri tri dégg su fekkee ne nag kiw power scratch card bi nga amee da ngaa xoos pin bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa code nga loot ko am sa cash power. sa lampa taal sa télé taal sa kër taal. xam <laughs> nga kon gaawal nga dem dugal yi dugalal nekk si gaaw. <laughs> maa xam nga nag li ma di wax. kiw sel daal moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu waaye kiw sel moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu. third group, new name? and the sick big milk. Peak is now renewed with Extra Fortified Plus to give your family even stronger bodies plus sharper minds. On the public holiday, I played basketball with my dad. Plus, I played a game of chess. Plus, I helped mommy with some housework. Plus, I completed my homework. Get more out of milk. Give your family the best every day with New Peak Extra 45 Plus. what for rek de. indil nañ product produit bu bees bu tudd Peak Loop Milk. pour bokk ci nag yomb na dajaleel juróomi sacheti pic bi ak juróomi xooliti poti pic bi def ci enveloppe binda ci sa tur sa nomba ak fi nga dikka nga yóbbu ko ci bitig bi la gën a jege. pic dugal nañ seen loxo ci sporti Gambia ndax daal dinañu sponsor benn team fii ci Gambia ngir rek suqali réewi Gambia ci wàllum nawetaan. first prize bi nag mu ngi nekk saaku maalo saaku sukur ak bidongi diwlin second prize bi saaku sukur ak saaku maalo third prize bi saaku sukur fourth prize bi saaku maalo emut foofu fifty third prize bi nag dinañ leen neexalee ku ci nekk carton yi meew Saad Institute nekkal fi askan wi waaw mbokk yi yéen a ko gisandoor fi mu nekk nii ñu ngi pareel ajuma bi bu soobee yàlla ajuma moom lu fay xew dina neex torop at bu jot officiel dañ leen dee indi lu neex lu rafet loo xam ne dina neexal seen xol neexal seen weeri koor bi yoon nag ñu indi loo xam ne leneen lu jéggi dayo la loo xam ne musut fee am te ñu ne ñu ngi ñaan pour képp koo xam ne mu ngi si dëkk bi ajuma su jotee su juma passé ngeen ñëw fii si officiel head office bi képp koo xam ne daal mu ngi fii teew fii nii si head maanaam suñu makkaan bu rëy bi fii Kairaba Avenue képp koo xam ne mu ngi fi teew Africell dinañ ekkati ñeneenti kilo maalo may la ko te nag fekk ñëpp amuñ ñeneenti kilo maalo ak sol duñ stop mayo bi foog ñëpp am seen ñeneenti kilo maalo yoo xam ne dinañ seen kër li ngeen a gis ni suma gannaaw mooy saaku ne yooyu la ñoo joxe ajuma bii di ñëw muy 19th of kanam képp koo xam ne daal ñëw na si official head office bi ajuma bii di 19th July 2013 ñibbee ñeneenti kilo maalo yoo xam ne official la leen ko jagleel kon donc ñu ngi leen a séntu ba booba asalaamaaleykum suma mbokki jullit yi ñoo seetaan ñu leen a nuyu di leen dalal fii si weeri koor gi waaye tey ñu ñëwoon fi nga xam ne mooy juma bi nekk State House ñu fas yéene waxtaane waxtaane koor waaye imaam bi ñu fi am tey mooy imaam Mohamed Lamine Cissé mi nga xam ne kenn la si imaam yi fii nii State House mu fas yéene waxtaane li nga xam ne lan la doomi julit war a def si fukki fan yu njëkkee yi si weeri koor kon nag léegi li ñoo def mooy welcome imaam rek di ko bismillah di ko wane asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim إن الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نيجي سنت الله سبحانه وتعالى دينان خيول أك موتشا أك جامّة yàlla na yokk dooleeku ci su bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak njobootam ak waa këram ak saxabaam yi ak képp koo xam ne fas na yéene pour roy leen gannaaw loolu ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm GRTS mi nga xam ne ñoo ñu dalal tey fii ci Chairman Jammeh Mosque ci State House di njëkk a ki nga xam ne mooy suñ kilifa muy cheikh professeur docteur alhaaji yahya abdul aziz jàmme ak imaamam yëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ronam yëpp ak familiem yëpp waaye ak réew mi yëpp ba bitim réew ci weeru kooru màgg wi nga xam ne li ñu ci sas tey pour ñu wax war waxtaane mooy ñaari tomba bu njëkk bi mooy ngëneel yu am solo yu nekk ci fukki fan yu njëkk yi ak suñu royukaay ñun ñëpp yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa lim ci daan di def foos mooy li njëkk ci ngëneel yi doy na ci rek ne or weeri mooy ñeneen